salaamaaleykum euh, mbokk internet euh, igfm point sn tey dañu am mbégte contenté di dalal euh, ki nga xamante ni moo di Demba Guissé donc tey occasion la ñu indil leen ko mu waxtaan ak yéen ci album boobu nga xam ne mi ngi def boom ñu koy wax quinzième étage donc tey di ngeen xam lan moo tax mu tuddee loolu album bi donc dem ba di kontaan si dalal bi ñu la dalal di la wax nga nuyoog internet yi lay seetaan. salaamaaleykum salaamaaleykum moom Fama. di la kontaanee vraiment di nuyu waa Sénégal yëpp naan leen nag kontaan nañu aussi émission bi nga xam dañ ko jàkkaarloo war ko d' donc euh, quinzième étage. étage koy rek que euh, comme dafa dogal musuma album premier album pourquoi pas su def album mu album bu mag album bu mag mag koy bu mag bi mu ngi que étage ku ne xam euh, Sénégal à 15 millions d'habitants, habitants à côté jékki-jékki ma xool aussi suma carrière bi ma ci débuté ba léegi mu war a toll ci fukki at ak juróom muy 15 ans ma teg ko ci ma pourquoi encore su may album bu mag pourquoi pas ma def ko 15 titres moo tax mu ñëw ci 15e étage. <laughs> d' donc 15e euh, étage nekk lu sori mu nekk 15 euh, titres aussi ma bëggoon xam euh, ci biir 15 titres yooyu noonu yan thème nga ci développé. bon bari na laal na ci société bi.

bon Bab Mal papa ne donc sama papa la sama xarit la et vraiment li wax ne ku ne rek am nga idole mom mu idole papa papa aussi aussi et euh, dafa possible rek euh, mo defal ko hommage bi moy deuxième ou bien troisième fois ko hommage quoi te it ci damay kon da nga papa idole aussi donc euh, je pense que Euh, euh, euh, mu tudd lëg bu lekkee alom na ko gërëmee cooy moo waral ko ma delloo ko njukkal ci loolu. lan moo la gën a marqué ci moom. bon moom ni mu ëmbalee wàccee boppam te it xoolul sax ak niveau bu mu toll ko su ma la xee ma maa dama koy message na ko waa père woo ma waay mu woo ma téléphone. ñu partagé waxtaan du waxtaan ci lu ne heure bu nekk. donc dañuy waxtu bisaak mën na ko léegi xam naa nag waxlu naa la ba nga sonn léegi bàyyi ma bàyyi la loolu aussi c'est pas facile ñëpp ñoo ko am donc moo tax aussi vraiment daal loolu moom moo gën a marqué ci moom. d'accord est-ce que tey jii nii euh, di nga bind sa ay album euh, def sa lépp bu mu paree nga jox ko mu déglu la ko yan conseil la lay jox ci musique bi nga xam ne moom ngay def. waaw moom euh, ba ci album bi nii bari na ci yoo xam ne moom ma jox comme conseil boo gisee def nañ ci benn duo man ak moom ni ma ko waxee keroog bu ma yóbbu. morceau pour moom moom moom mu def ci voix dafa ne ma non morceau bi balaa def voix d' abord dama koy indi diglu ko ba pare ah ma corriger la ma ne ko d' accord mu yóbbu morceau bi mujj maa corriger mais dafa mujj dolli ci maanaam dafa waxoon na dafa bëgg a déglu xool paroles yi ak lan laaj ci wax bu ko defee bu amee lu am rëq-rëq mu changé ko far ma jox ko ko mu ne ma fii sax du am corriger waaye day am yokk. mu mel ni que léegi wax ak tontu la dafa wax dama ci wax après mu tontu mu nekk di duo bu extraordinaire moo ko ci remercier baax a baax baax. ok euh, Demba Guissé ban style de musique def. bon man léegi nag yëpp laay def ah, parce que bu njëkkoon dama limité woon trop ci euh, traditionnel acoustique bi ak folk bi yooyu mais léegi nag euh, comme on est Sénégal te it foog des fois ngay dugg ci rimbi rimbi gi. <laughs> xam nga pour yenn benn public bi mais quand même moo tax léegi album boo xoolee variété la am na mbalax bu pure dire am acoustique am morceau pulaar yu soft yooyu am na nag marimba bu saf sàpp aussi am na salsa et tout donc euh, variété variété la boo ko dégloo tey Euh, même boo nekkul euh, woykatu Demba Guissé di nga am style bu la ci neex boo xamante ni woyee naa ko foofu. <laughs> d'accord donc euh, mbalax bi daal il faut il faut rek bu dugg ci affaire yi pour mu saf la wala. waa non non xam nga aussi public dafa yemul te ku nekk ak la la saf am ñoo xamante ni bu fi fil ko lu si wàccoon tamit li muy woy du ko yëngal am ñoo xamante ni Ouzin Keita moo leen di daaneel. donc il faut aussi ñu bàyyi loolu xel. te daa mën a daanu. <laughs> ah gis nga te <laughs> léegi tey su ma la waxoon nga defal ma sa bref parcours euh, fan nga jógee ba léegi nii. boo man nag euh, avant Sénégal di ma xam nii ci ay écran yooyu ci ay concours laa njëkkee parce que depuis ma bàyyi mécanique euh, mécanique mécanicien laan bu mag nag bu mënoon liggéey trop xam nga mais am xam nga rek des fois ba ba may mujj def sa ba may njëkk a def suma clip. càmm bi muy waaj génn bi ma biñ ne suba laa war def clip bi tey maa ngi ci garage mécanicien bi di liggéey dégg def naa son bi buy tey maa ngi ci garage di liggéey suba ma def clip bi mais ma def clip ba pare bi ma ñibbisee nag laa sànni te nii parce que xam naa ne que du ma ko solaat ak du ànd ak sorti clip bi après ma aju gars yi taw mécanisiens et tout mais quand même avant boobu nag ay concours laa njëkkee woon gañe naa concours nag yàlla def na macha allah euh, concours yi fi amoon triple XL bi mu ñëwee ma def euh, en en deux mille je pense deux mille quatre xaw ma maa nekkoon meilleur chanteur. Euh, ma jóge fa représentant du Sénégal Bamako jël deuxième ci ñaata pays beaucoup de pays yoo xamante ni dañu participer ci affaire bi ma nekkoon sénégalais en mille dix en ma ñëw nekkat Oscar des vacances aussi nekkat meilleur chanteur Euh, jël trophée bi en 2011 encore yu sundour organisé won xex si biiru teg ci loxo bubu Ndour mu at meilleur chanteur donc di sante yalla bu baax a ak yeneen yo xam sax dama koy fàtte quoi. <laughs> d'accord donc nga euh, nga nekkon li nga mo ni mécanicien jékki-jékki def clip rek simu tenu bi euh, après lan motax parce que so commencé génn ci télé bi da ngay nek ci benen level wala. wa non temps bi la rek man mom man bay Fall la quoi man du du problème bobu sax ay ay benen benen level sax quoi mais temps bi di la may quoi.

ah fiir fiiru garaaw yooyu moo wóorul mais quand même fiir ku bëgg dina fiir ndaxte fiir moom des fois sax mën naa ne signe la buy montrer que da que bëgg mais quand même euh, bu ëppee wóorul mooy indi yenn yenn yenn yenn jéey yi ñeen ñi def te boo xoolee sax ah, d'habitude euh, ah, problème yu bari bu ñëwee ci fiir ah, ku jigéen ki mooy def Ah, d'habitude raar na ngay gis ku ku góor ki def dara parce que dafa fiir mais jigéen rek lu bari bari bari lay kii kii lay lay dal. moo tax ma leen di wax nag sama mbokk jigéen ñi nga xamante ni moom samay sœur lañ samay xarit lañu ah, ñi moytu baax a baax a baax maa ngi ci wax ku bëgg fiir waaye nag si ëppee moytul. d'accord comme da ngeen ñu ëpp maîtrise daal wax bi loolu la euh, donc euh, récemment ñoo ngi doon dégg que da nga takk ñaareel ak yooyu noonu ngeen ne loolu amul et tout moom ba ko déggee nan la dundee. non non non moom bokkoon bi quoi. ndax bëgguma affaire yi bugguma bugguma parce que am na ñoo xamante ni bi ñu defee euh, bi ñu bi ñu déggee seen jëkkër dafa takk soxna dañ ko tuur dawlin xaaruñu sax lu leer am na koo xamante ni ni mu soodee noo bokk la kiñ taal kiñ taal sax bon euh, ndeysaan euh, yàlla na ko yàlla yërëm ki parce que bon mën naa ne sax ki ko def tayu ko peut-être ne kii lay nekk rek bëgg doo doo daan ak sago mais quand même yàlla na ko yàlla aussi génne ca fa mu nekk moom ak ñoom fa nekkal et tout mais quand même euh, man euh, lu may wax ni que gis naa dégg naa ci histoire boo xamante ni que kooku waa ji dafa gaare ay 11h midi ne jakk ne jabar ji wutal naa la ñaareel. xam nga jabar jabar ji tontu ko mu ne ko waaye defal ma rek ma lekk ba pare su ma paree moo xam ne nag kan la. dugg toog di ko xaar jabar ñi muy toogee noonu li mu doon toog la ñëw tuur ko ko ndexete ñaareel bi mooy kàrkat bi mu ko gaaral si buntu kër gi. donc nga xool li que tey loolu affaire bu doy waar la surprise la ko doon defal euh, far jabar ji defal ko surprise moom tamit. léegi nag li ci xaw a doy waar mooy que man sama jabar dama ko teel a aviser dama ko ne dafa am benn jeu bu ñuy def. waaw kay euh, ci benn benn si du woon sax affaire kii mais si benn projet la woon quoi. moo ci ànd ak benn femme. Euh, sama xarit la nag Hélène Hélène Anne sama xarit la ma koy nuyu moom ak jëkkëram aussi mais mu accepté joué ma loolu femme bi mais sama jabar dama ko expliqué mu ne ma d'accord amul benn problème ak yooyu léegi nag bi photo yi génnee et tout internet bi ñëpp bind ku nekk di ma invité ma laaj loolu fekk fekk fekk sama jabar aussi bu ñu ko laajee aussi xam nga xam nga des fois sax ay nit woo ko ne ko ah góor ñi nii lañ mel ak yooyu mu ne waa gis nga de ak yooyu fekk ne mu ngi ci jeu bi fekk <laughs> sama xarit la quoi Mhm. d'accord donc euh, euh, duñ lay gis lu bari, ngay nekk di def euh, ay after work ak yooyu noonu lan non non non donc xam nga peut-être ni ni ko dul le peut-être mooy mooy ñu dul trop trop trop mais quand même bariwul trop aussi ma di ko def parce que léegi affaire bi saturé na compliqué na. du may def comme gars yi def chaque samedi oubien chaque mercredi oubien bien chaque vendredi non non non man sumay programme day écarté wu tuuti nekk day par un mois wala par deux mois et tout waaw day nekk ay soirée préparé ko ndax sama fan si bu ñu génn dañuy def masse dañuy def ah masse génn donc buñu ñu toogee dañuy def masse toog. Ligue, <laughs> nag <laughs> bëgguma di <laughs> bëgguma samedi bi ñu des samedi nga def maison de production wala autoproduction non non non label maison signer contrat donc chaque jour euh, sama affaire dama ci liggéey ak ay professionnels ay nit ñu ñu ci euh, def contrat de ligue si ben affaire quoi mais pas mais pas même cas pas nekk si label wala euh, structure quoi. Mhm. d'accord est-ce que y a def fi musique Sénégal. yomboon na mais léegi dafa métti quoi léegi euh, talent kese du la génne quoi ndax bu doon loolu la ñuy génn fii dina bari torop ndax léegi ñëpp a mën a woy <laughs> bu njëkkoon da ngay am. talent ñi génnee la nga siiw euh, nga am xaalis après léegi nag dangay am talent waa ci boole am xaalis dina la arranger bu njëkkoon da ngay da ngay def musique am xaalis léegi nag da ngay def xa da ngay am xaalis pare pour mën a def musique xam nga fu may xeex. léegi musique bi génneetul xaalis mais il faut nga yokk non non non ah, jafe na ci nit ne la génne naa album génne naa ci sax li ma ci defoon waxuma la bénéfice li ma ci defoon. waaw kooku peut-être ne que yi nañ xam li may wax euh, parce que léegi jëndatuñu album wa WhatsApp baa ngi fi YouTube baa ngi fi donc tey jii ko koo yónnee par WhatsApp euh, ci ci ci <laughs> si si numéro am 15 euh, morceaux wax dëgg yàlla nag di dem ba ba ba Sandaga mbaa mbaa ba Kaas ba nag di jënd di jënd di jënd album parce que téléphone la koy amee ci la moom la koy dégloo donc lii après. Euh, def bon xanaa mu ok mu jënd ko rek pour participer parce que euh, nitam nga peut-être wala ak yooyu mais quand même pas jënd album bi mel noonu quoi du doxatul parce que li tax ma ne que léegi da am xaalis pour sa def musique mën a neex mooy que léegi lépp da ngay fay ci côté liggéey quoi pas pas quand même côté animateur wala côté diffusion quoi mais quand même pour nga def sa communication ak promotion bi foog nga mën a yor xaalis pour mën see euh, def. pour nga mëna am bobu ki parce tay a télé bo ci liggéeyal bu dé né que da nga pare di nga am part boy def joxé ko ñu mëna la génné bu dé ay bande annonce ay spot ba nangam nangam xam programme yi nga def encore il faut nga def communication si internet bi fay lépp pour que nga mëna am visibilité bobu donc lool motax man la nak légui nak mom foog nga am xaalis taxaw bu dëgër motax bo xolé ñu bari ñi ñi ñi nekk ci label yu am doolé wala am ñu am ginnaw ay nit ñi seen ginnaw ñoo ñoy gëna nekk li si ëpp <laughs> D'accord. ok. D'accord. est ce que vous nañ xam euh, mën nañ am euh, xaar euh, li nga xam tournée nationale wala internationale pour promotion 15e étage. D'accord. D'ailleurs, comme biñu Sorano ak je pense que ay deux mois lay wara mat yoy bi fa jógee. barki démb lañ def Saraba moy benen soirée biñ ci tek ok ok. <laughs> dem Saraba ko <laughs> Ah, ok jéem nañu daal ba affaire yi réussir donc euh, ma ciy remercier aussi comme ni ko waxee rek ak waa groupe Futurs Médias parce que man lu ma def vraiment ànd ci ak ñoom ñu jàpp ci aussi donc euh, Sorano bi aussi jàpp nañ ci euh, Sara Ba barki démb aussi affaire bi extraordinaire yàlla defaat ma war a jóge fii war naa dem Mantes la Jolie war naa dem. Le Havre ak euh, Lyon ak euh, ok quatre quatre pays quatre ah. ok quatre euh, dans un mois Inch'Allah. On def Europe bi def parce que faire ko mais ren comme nous ben dëkk liñ ci teug demone ñëwaat ren non Nous Havre ak non nekk France ak mantes la donc ren quatre pays yo xamanteni war nañ euh, donc euh, pour présenter album bi en même temps dafa ay soirée extraordinaire parce que euh, wóolu nañ ma way manit it le ndax chaque année def ko mu dox. d'accord euh, lan moy sa dernier mot. dernier mot je suis baxa a baax remercier aussi ñi don doon ah, remercier aussi ak IGFM de remercier yow Mame Fama Mame Fama geuy parce que mam Fama geul la moo tax yow foo foo jaar ma bëgg la sama xarit nga donc di remercier équipe bi yëpp ah, di remercier Aïcha bi ma àndal donc euh, naan la yàlla na yàlla def jàmm fii ci kër gi ñaanal nag per yu yàlla gën ko fee bàyyi ndax am na solo ci ci ci ci ci ci monde bi. <laughs> léegi may ñu benn euh, acapella. Euh, d'abord ma wax Sénégal album baa ngi nii ah. comme léegi moom jaayatuñ ko leen koy maye. <laughs> léegi ku dem YouTube fek album bi sarax len ko ngeen jonne ko wa da ngeen ci war a jàpp yéen fans yi mo ngi nii seerutu majeure partie ci ci affaire bi yepp li ci dem na ci diaspora bi joxe nañ ko fi senegal aussi gars am nañ ko donc les prophètes na geureum na wa senegal geureum wa wa wa geureum sama mbokk alpulaar ya trop trop trop xana ma len a cappella fiir rek xam nga man mi ki ma doon warna tax nga baye di ma fiire man bëgg naa laa bëgg nga ma amal confiance bébé xam naa ni yaa ngi may moytul ay njombe musiba naaru laay kon bonoo ndax soo bonoon guddi ngay dox xaj yi di la mbëw mbëw mbëw mbëw merci beaucoup <laughs> internet IGFM euh, euh, ñoo ngi leen di jaajëfal ñoo nekkoon nag euh, ki nga xamante ni moo di Demba Guissé di leen jox dig daje ba beneen ak keneen jërëjëf.